asalaamaaleykum wa rahmatullah di njëkkee kàddu gi kàddu gi sant sant yàlla bu baax a baax moom mi nga xamante ne moo ñu may ba ñu fekkee bés bi te tal ko ba di ci def activité boo xamante ne waajaloon nañu ko ci coobareem di no doore di nuyu nuyu ñëpp ñi nga xamante ne euh, teew nañu ci bés bi te di jiital ci nuyu gi xalif général des Mourides sëñ Muntaxa basiiru Mbàkke di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaanal bépp kilifa diine ci réew mi di ko ñaanal bépp kilifa aada ci réew mi di ko ñaanal waa réew mi yépp di sant bu baax le autorité yi nga xamante ne fekk naa leen fi mooy autorité administrative yi di maire di yeneen autorités yi nga xamante ne teew nañu ci bés bi di ndokkeel di jaajëfal bu baax ministère de l'environnement ak ñëpp ñi nga xamante ne agent ministère bi lañu di jaajëfal bu baax ñi nga xamante ne taxaw nañ am nañ taxawaay gu mucc ayib ci bés bi di beral loxo nag ñii di waa Touba ci kanam nga xam ne euh, bokk nañ ci li gën a tax journée bii ñu doore ko fii gannaaw cër gi nga xamante ne jox nañ leen ko ci seen taxawaay ci liy jëmal dëkk bi ci kanam waaye dañoo def jàlloore ci jëmbët garab bi ma doon waxtaan ak ministre bi lan moo tax ngeen tànn tuubaa pour ñu doore fa reboisement bi Euh, dafa ma wax ne dañoo gis fan yii ci ndigalu xalif général des Mourides sëñ taxa Mbacké yàlla na fi yàgg te wër waa Touba ci kanam dañoo def pépinière bu mag a mag a mag a wax na ma ne sax pépinière bi egg na ci ñaar fukki junni ak juróom ñetti junni ci garab muy vingt-huit mille garab yoo xamante ne mu ngi fii ci Touba ci pépinière te ñu war ko jëmbat ñu di leen ci jaajëfal bu baax di leen wax ne lépp loo xam ne gouvernement bi mën na leen ci gunge jaare ko ci ministère de l'environnement wala yeneen ministère yi taxawaay boobu dina mat sëkk parce que li ñuy ñaax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci communes yi rawatina communes yi nga xamante ne dafay am mbooloo gu bare bare bare kuréel yi fa nekk lëkkaloog maire yi pour ñu taxawal ay pépinières yu mel ni pépinière Touba ci kanam muy pépinière boo xamante ne du dañ ko jëmale ci li saxal ay garab ci euh, dëkkuwaay yi sànq le porte parole xalif bi ñu sëñ Bass Abdou Khadre ma koy jaajëfal bu baax ci teewaayam ak ci kàddu yu rafet yu mu yëkkati mu ngi wax ne ci ndigal yi sëñ Touba joxe woon ci jëmbat garab di ci ñaax taalibe yi def ko lal ci garab bu amul dund ji mën a am ci kaw suuf mu méngoog slogan bi nga xamante ne maanaam bàkke bi nga xamante ne moom la ministère de l'environnement jël at gi muy garab moo tax ñun suñu teewaay gi ci àdduna mën di wéy mooy l'arbre notre assurance vie kon fépp fi nga xamante ne ci Sénégal woo nañu ñëpp pour ñëw ci bés bi taxawoo ko nu mu waree pour jëmbat ci nu mu gën a bare ay garab ci gox-goxaan yi ci dëkkuwaay yi dañ koy def ci logique co-construction bu ñu nekk ak sénégalais yi bi ñu toogee ba tey maanaam liy defar Sénégal na sénégalais bu ne jàpp ne mu ngi ci loxoom ni mu nekkee ci loxo président de la république nu mu nekkee ci loxo ministre de l'environnement nu mu nekkee ci loxo bépp agent euh, ministère de l'environnement kon ci misaal nit taxaw nit saxal ay garab ak toppatoo leen ba ñu màgg nu mu nekkee wareef ci agent eaux et noonu la nekkee wareef ci bépp citoyen Sénégal bi nga xamante ne bëgg nga di dox di gis ay garab bëgg nga booy dox ba ba sonn nga am foo feexloo ci ronu garab bul xaar ne garab boobu keneen moo ko war a jëmbat ba mu sotti nga ñëw toog ci suuf si waaye yow tamit danga nga am cëru ak devoiru saxal ay garab di leen toppatoo 28000 arbres maanaam ñaar fukki junni ak juróom-ñett ci garab yoo xamante ne ci ren gi kese waa Touba ci kanam saxal nañu ko balaa muy am sance ñépp ñi nga xamante ne ñoo dëkk Touba taxawoo ci li koy li a li tax ñu arrosé ko ba nawet bi génnee ba garab yi mën a dund waaye ministère de l'environnement boo xoolee ci lu mu recense yëpp ci ay garab ren gii ëpp na 5 millions juróomi million ci ay garab yoo xamante ne ci journée ren gii nii rek war nañ ko jëmbat ci gox goxaan yi Sénégal yëpp ngalawaay nañu fexe ba ci 5 millions yooyu li ci gën a bare mën a dund ba taxaw ndax bu ko defee at bu ne bu yàggee Sénégal naataange dina fi dina fi dellu ci waat jaare la ko ci garab foo tourné gis ay garab te mu doon loo xamante ne day gën a ñongal dund gi ci biir Sénégal kon sant na ñëpp ñi nga xamante ne ñu gis leen ñu bañ leen gis ñu dégg leen ñu bañ leen dégg wala ñoom ñu gis ñu wala ñu bañ ñoo gis ci journée bi ci suñu taxawaay ñu ngi dem di jëmbat ay garab ci moment bii ñu toll nii di ko defee Touba. ñu xam na lii rek symbolique la ci dayob dëkk bi waaye symbolique la tamit ci taxawaayu waa dëkk bi ci yàgg saxal ay garab te gën cee taxaw ñu gën di leen ñaax di leen ndokkeel di leen jaajëfal di leen jox tamit mu doon royuwaay ci ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ciy góorlu ak ñeneen ñoo xamante ne war nañ cee gën a góorlu ndax bu ko defee ñun ñëpp buñ ko bokkee ci senegal am taxawaay boobu bu yàggee lépp luy avancé désert ak désertification ak ci fépp fu mu mën ci Sénégal dinañ ci ànd saafara ci nu mu gën a gaawee lii moo nekkoon lu ñu koy doore di doore di mujjee ci gën a ñaax ñi ci am taxawaay di leen gën a soññ waaye tamit di leen jaajëfal bu baax a baax a baax muy ñëpp ñoo xam ne taxaw nañu ci jëmbatal ay garab tey waaye ñi nar a taxaw tamit pour gën a suuxat garab yooyu ci di leen arroser ci di leen toppatoo ci di leen ñàgg pour dal gën bañ leen yàq lii moo nekkoon kàddu yoo xamante ne bëggoon naa ko sotti ci bés bi di leen sant bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf monsieur le président.